Thiago.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 asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk yi ñuy suivre ci Equivox TV ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen ñaanal jàmm te di ko sàkku ci yéen tey nag ñu ngi mercredi 6 octobre 2021 la may def mooy bàyyi leen ngeen dem déglu te seetaan yëglekaay yi li ñu indi ñu dikkaat ak yéen si plateau bi. asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah mercredi 6 octobre 2021 dañu ñëw ak ci yëglikaay suñu làmb leen kay dooreeti yëglikaay bi nag moom tey dafa xëy ñëw andil ñu loo xam ne nii maanaam li gën a fës tey bokk ci xëtam mu yëg bokk na ci ball gay Gaye de bombar Bombardier Eumeu Sène ba ci Tapha Tine yëglikaay bi ne boo bëggee dégg-dëgg daal daa mel ni fi mu nekk nii daal ak jaxasoo wala boog xel mu ñàkk daal am na ci dati combat yi ndax nag la ko war a lenn la maanaam fi mu nekk nii boo bëggee dégg-dëgg daal lamb ja dat ya dafa mel ni ki daal ay jafe daa mel ni daa mel ni moom moo koy yoot mel ni ki nag yëglikaay bi loolu la xëy tey dikkal ñu ci dikkal ñu ci ñeenti nga xam ne Balla Gaye numéro 2 jël ko moo tax yëglikaay bi ja ca kaw maanaam ak jafe ak jafe-jafe wala boog xel mu ñàkk dal dal mu nga fa toog waaye yëglikaay bi terewul xamal nañu ne day ball gay numéro 2 ak Bombardier ñu ngi ko jàpp nga xam ne moo di premier janvier deux mille vingt deux Eumeu Sène ak ka nga xam ne nii tamit moom moo di ball gay numéro 2 ba ci B52 tamit yooyu tamit ñu nga xaar di déglu tafaatin moom ay plan moo faussé yëglikaay bi moo xëy tey dinu wax lu mel ni kii noonu ñi nga xam ne nii moom bu dee dañoo faussé ay plan la leen ci mujj a fekk neexul muy waa Grand Yoff mbooloo ndax nag ku ne xam ne ne dimanche jii nu jëm di le 10 octobre yëglikaay bi xamal nañu ne daal DKR journée ba nga xam ne nii moom la tëggoon te nu aj ko da ko fas yéene tëggaat mobile bu Grand Yoff waroon ca bëri ak ka nga xam ne moo di Buur Sine bu Bawol mobile nag mu nga réewum États-Unis bañ ne du ñëw bëri si moo tax yëglikaay ba nag nee na la ñu wala waa CNC mujj def daal mooy suspendre écrit ba mu bokk muy Grand Yoff mbooloo yemuñu ca manaat sa ba nga xam ne moo ko engagé woon di bëgg allu tamit ban ko si signalé mu bañ dan ko aj moom tamit mel ni kon daal foofa tamit mu nga wéy daal di metti mu mel ni ki bés booba nag la loola taxu koo yàq maanaam ñàkk bëreeg mobile daal terewut bés ba moom day am ndax ku ne xam na ne komba faar ba ne ca kaw moo mu war a dox ci diggante Nékoréel ak marle combat ba ñu ngi koy xaar moo tax nag Nékoréel wala boog marle ma war a bëreeg Nékoréel daal mu nga xëy di leeral daal nee na li mu gis daal nee du lu lenn lu dul am ndam ci kaw ka nga xam ne moo di Nékoréel moom daal moom marle lii mooy bëgg-bëggam loolu la gis te na itam ci loolu lay xëy di ci gont mel ni que nag loola mu bëgg Nékoréel tamit lu ko raw la bëgg mel ni daal ñoom ñaar fi mu nekk ni daal ku bëgg fu mu fanaan la ak ku bëgg ku ko wettali tëj buntu moom du leen xalaata boole ñoom ñaari mbër yi daal fi mu nekk ni pare nañu kon daal ku yebu dimanche moom na nga waaj te xam ne ren te DKR moom a moom làmb ji ban ko ubbee moo fi njëkk nga ñu ab tournoi moom moo di fils de bat leen sikki maanaam Mamadou Moustapha Sall yëglikaay bi xëy na tey dikkal ñu ci lu mel ni noonu ak keneen koo xam ne tamit bu nu yeboo nga xam ne mooy layti mbeeloo ngit moom nag moo yor rëg-rëg di engagé ay contrat ak léppam waaye moom la mu xamle daal nee na boo bëggee dëgg-dëgg daal lamb ji fi mu nekk ni amu ci mbër yi ca kaw ba ci suuf koo xam ne def na leen ci ak jaaxle wala ñu koy bàyyi xel layti na na déedéet loolu du am loolu nag vidéo la boo xam ne ni moom ku yebu xaar ko ci Equivox TV layti fa la waxee wax jooju moom nag moo yor rëg-rëg jërë ngeen jëf kon dégg ngeen yëglekaay yi tey loolu lañ ñu andil ginnaaw bu ma leen ziaraatee ñaanal leen jàmm sàkku ko ci yéen képp koo xam ne rek yaa ngi ñu ci àddina bi ak foo mën a nekk rek ñu ngi lay bëgge di la ñaanal jàmm te di ko sàkku ci yow la ñuy def nag mooy sunu làmb comme ni ngeen ko xamee moo fi ñëw tey ci xëtam mu njëkk la mu ñu xëy andil tey bokk na ci la ca gën a fés photo ba ngeen di gis noonu Balla Gaye numéro 2 le lion de Guédiawaye Bombardier ah l'enfant série de Mbour Eumeu Sène l'homme de Taïsinga ak Tapha Tine borom taq ci rib ñeent ñooñu tey ngeen gis yëglikaay bi andil ñu leen yëglikaay ba nag la tax mu ñëw ci nee na boo bëggee dégg-dëgg daal fi mu nekk nii a ah, daa mel ni xel ñàkk naa dal ngir lan ngir problème mu ay dat maanaam suuf am na foofu ay xel yu ñàkk euh, kii daal parce que li ko waral mooy fi mu nekk nii làmb ji ku ne xam ne ne ajoon nañ ko donte aji nañ ko ubbiwaat nañ saison bi nag waaye daal daa mel ni xel yi est que dal na à 100 pour cent ci date yi ne boog wala ñe contrat yi nga xam ne Balla Gaye 2 gàddu na ko fas ko yéenee bëri mel ni ki nag loolu fi mu nekk ab jafe la waaye nag man damay jàpp ne est ce que foofu jafe-jafe am na fi parce que li tax mooy saison bi ubbiwaat na yaa ngi dégg promoteurs yi nga xam ne ñoom ñoo amoon ay combat jox nañ leen seen ay date pour ñu war ci tëgg seen ay mbër kon defe naa est que jafe-jafe ah foogu moom war a mën a am te yaakaar naa ne ñu ngi ñaan yàlla coronavirus bi nga xam ne moom moo indi woon problème bi ci réew mi yàlla na gën a jeex mu ngi wàññeeku yàlla na jeex tàkk ba ñu mën a continuer sunu ab saison te xam na ne saison bi su continuer mbër yépp ku ci ne sa contrat moom incha allahu rabi di nga ko honoré parce que promoteur bi dana ko tëgg nga bëree ko kon ñun loolu la ñaan yàlla na loolu am Bombardier ak Balla bëre ah Tafatin ak Boy Niang bëre euh, maanaam mbër yëpp bëre su ma limee naa juum combat yëpp ku ci ne daal nga bëre bu ko defee jàmm ne ñooy te itam defe naa ne loolu mooy li li li li li li waa loolu la état war a bëgg loolu la réew mi bëgg parce que làmb moom encore une fois lu may wax rek mooy suñu sport national bu bëggee dégg-dégg ndax ñay seetaan football ñoom saajo maane bu ñuy wétleku du ñu wétlekoo football ñoom làmb la ñuy wétlekoo yaa ngi dégg te ñooñu ñu nga ci wàllum football maanaam ay star planétaire lañu parce que tey addina bi yëpp xam nañ kan mooy Sadio Mané pourtant day wétlikoo làmb Idrissa Gana Gueye noonu boo demee ca basket ba Youssou Ndoye ku ne xam na ku ne gis na bërki dem bi ñuy dem di basket yi Modou Lo àndul ak ñoom dem supporter ji leen la ko indi mooy parce que ñene ca basket ba da cee bëri ñoo xam ne ay nitam lañ di ko bége en tant que mbër muy Youssou Ndoye muy Ngagne Sagana Diop ay ñoom góor gi si jàng kon ça veut dire que moo lay wan ne làmb kon Sénégal maanaam culture na sunum réew ko moom maanaam lu ci waay mën di yëngutu sax du la tere yow di nga toog benn moment nga concentré wu di seetaan làmb kon ça veut dire que làmb jooju mooy mooy li nu moom jëggaane wuñu ko ba tey bu nu continuer ak sunu làmb mu ngi ñu xëy di nu wan écrit Grand Yoff mbooloo wan ñu mobile mi nga xam ne ah journée bi nga xam ne moom la war a bëre dimanche bii nu jëm muy le 10 octobre waa den waa rent DKR tëgg ko ñoom Alec ñoom Jumbo ñoom Pape Sarr mu mel ni ki nag mobile mu nga narul ñu daal ñëw bëree loolu nag bi mu amee woo nañ manager au niveau du CNC pour mu signer combat bi ne bi loolu amee nag waa CNC tamit jël seen ay décision ñoom aj ki nga xam ne nii moom mooy mobile ak ak écrit ba mu bokk muy Grand Yoff mbooloo waaye yemuñu ca même manager ba nga xam ne daa bañ a signer sax muy bëgg fàllu dañ ca ajaale loolu nag li ko indi xëy na mooy bañ a signer bañ bëri si loolu nag ñun bu ñu amee lu ñu si wax mooy encore une fois lu mu mën a doon dafa am ay règle maanaam làmb xam nga ay promoteur du ñu jël seen ay millions di ko génne di ko joxe te mbir duñ ko réglementé parce que ay millions du xaalis bu tuuti la ca des mooy lamb sport la di suñu sport national ñu di ko def kon day am ay règle waaye dama naan lamb jooju li indi ci problème tey jógewul pour man ci promoteur bi ndax moom la ko waroon def na ko jógewul aussitôt tam ci mbëre ndax la leen waroon ca bu njëkk def nañ ko waaye nag jaam ak pexeem yàlla ak ay dogalam yàlla moo dogaloon journée ba fañ ko bëggoon tëggee bés booba amu fa ndax lan défaut de sécurité la ñu préfet de Dakar waxoon ba loola amul woon ñu ñëw tey ba fii am mbër yoo xam ne ñoom parewaat nañu mbër ngir bëre mais am na ci biir ñoo xam ne dañoo bañ a bëre mais nag nañu comprendre rante balaa ci yëpp man yëpp mën na si ñàkk am parce que bu comparaison amoon ñoo xam ne dàqum journée ba du promoteur ba ko waral du mbër yi ñoo ko waral kon defe naa waroon nañoo muñ ku ci nekk ñëw jéem a honor parce que dama naan bu ci perte ma amee yéen ñaar ñëpp a perte mbër ma perte na waaye promoteur ba tamit perte na moom mi jël ay millions joxe ko muy nelaw munu caa jotaat depuis ay weer kon kooku tamit waaye ñu ngi leen di encouragé ñoom waarante DKR di wax ne que daal ñun bu ñu sañoon làmb ajante ak ay sanction du ci am waaye nag dafa fekk ne mbir yi ay regal la waaw bu ñuy jiite bu ñu jàppee ne yow da nga xët règle yi am nañ droit indiwaat la ci kaw raay bi nag ne la nii la war a demee deme nii demee nii parce que loolu mooy tax mbir yi baax bés boobu tamit buñ ci continuer des ci ba tey mel ni dimanche ji nu jëm la marle mi ngeen xam marle école de Papa Kane nekk ci géejawaay moom moo war a bëre ak nekkuréel bu Lansar marle tamit mu ngay wax bëgg-bëggam moom ndam rek ne na moom la gis waaw parce que tamit fi mu jógee moo tax Marley daa jóge ci ay defet kon defe naa tey boo amee adversaire bu mel nii war a bëre ak moom ah ndama ko jig de waaw daa fekk nag sport dafa am yu ci am le père Max Mbargane noonu ñaari ndamay dugg mais benn moo ci nekk loolu mooy lay am soit bu ngeen di ñëw yéen ñaar ku ne ndam ngay wër si waaye bu ngeen di ñibbi du ñàkk kuñ na muñal wala la boog match nul am te nekku nekkuréel ak Marley man seetlu seen tuuma ci match nul parce que li tax mooy ñaari bërekat lañu ne kuréel tamit tontu mu nga ca kaw tontu na moom gis ngeen ko mooy tam wax na la mu bëgg waaw mu mel ni kon ah rent Dakar indi nañ lu neex a neex xale bi nga xam ne tamit lamba nga koy commencé bàyyi xel mooy fils de Batlenski bari ki dem dalal naa ko fi ci Arena Hebdo mooy xale boo xam ne ku jara a bàyyi xel la dëkk ginnaaw raay Pikine ah ren tournoi wala boog làmb simple ren bi njëkk a teg moo ko jël fi ci terrain gaal gi nekkoon 1 million bari ki démb samedi ba dimanche ja bët fa nga xam ne moo di stadium Iba Mar Diop ci journée Jaks ne macha allah mu ngi ci yoonam di ñëw toog na fi sax xam naa ne ne ne xaw ma la am xaw ma mais xam naa ba dafa juumoon mais au contraire dafa juum parce que moom mu ngi bëgg a wax ne 96 laa juddu xaw xaw caa juum mais 96 la juddu xale boo xam ne xale bu la macha allah yaa ngi dégg ne ci yoon di liggéey kon loolu moo lay wan ne tamit affaire yi moom ah li olof di wax rek xëcc bu ya bu daggul. bu yàggee rek da nga gis la ngay xëcc bu soobee suñu borom waaye mais la ngay xëcc yàlla na doon lu baax kon loolu moo fi dikkoon tey waaye li ma wax sa sànq tamit bàyyi leen ci xel loolu bu ngeen demee ci kii kanam Equivox di ngeen ko fa gis Leyti mi ngeen xam Leyti Mbelo ngi Leyti mu yore rëg-rëg ah la mu wax ñoom la mu wax daal mu nga fa mais ci kanam di ngeen ci am lu leer nañ lu gën a leer incha allah ndax di ngeen seetaan vidéo bi ci Equivox TV di ñaanal ñëpp jàmm di balu ñëpp ak mais di tamit ñi nga xam ne ñoom ñooy hmm? téléspectateurs yi nga xam ne dañuy topp ak suñu mbokk internet yépp dañ leen di bëgg di leen ñaanal jàmm fu ñu mënta nekk ah fans club Equivox ak Babacar du leen fàtte ñoom Adama Ndiaye ñoom Arona kamara ñoom ñëpp hmm, ñoom Bamba bu booy Faye Awa Diop Touba ñoom ñëpp maa ngi leen di bëgg fans club bu fans club Babacar tamit maanaam 100 pour cent Babacar du leen fàtte ñoom Jiga Cédric Saliou saar ñoom Bakary Ba ñoom ñëpp maa ngi leen di ziar di leen ñaanal jàmm fu ci waaye la a nekk rek di ñu sagoo rek ñu ngi lay bàyyi xel di nuyu groupe làmb yi ne ci Sénégal yëpp groupe WhatsApp ah, ñu ngi production Ndiaye production ahlu làmb sunu làmb ah groupe yëpp bu ma limee dinaa juum groupe ñu suñu groupe bi ak ñoom Grand Laye Ndiaye boobu tamit ñoom yëpp ñu ngi béggee ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm waaw ah, di nuyu képp koo xam ne daal yaa ngi ñu doon suivre kule di wax ka ni tamit ah sama xarit ba nag dafa am ngénte incha allahu rabbi dimanche jii nu jëm xam naa xulle foofu foofu moom maa ngi fay ànd rek Rimka Couture fii ci zone de captage ñaareel ba defe naa ne moo am bébé faw ñu dem fa nag lekki laax du mën a ñàkk taal bi sëñ Abdou Karim doomu ndeyu Tidiane Daabo borom Suisse Gold kookoy Rimka Couture dégg nga woy wuré bu ko Wally Seck woy kera c'est 2STV Rimka Couture ne naa leen téer Sénégal moo ci number one loolu moom maa ko wax parce que loolu la yàlla dogal kooku mooy Rimka Couture may bëgg nag Samba Kara taalibe maam Thierno borom daaru ndax moom moo tax ma xam Rimka Couture maa ngi koy béggee Samba Kara bu baax a baax dëkk fële ca way di ko nuyu di nuyu soxna moom tamit fan yële paas mu ngi doon génte di ñaan yàlla rek bébé yi fii gane si àddina yëpp yàlla def ay mag def leen ay mag magi l'islam def leen mag yu am ñam waaye tamit noonu ñu ñuy dëddoo ñuy dëddu tamit yàlla leen yàlla jégal te xale leen aljana parce que àddina loolu moo fi am rek bu ñii di ñëw ñi dañuy dem bu ñuy wéree ñi dañuy wéré di waaye lépp rek sunu borom bi la soob kon kun fa yàkkoon la moom suñu borom moom moom mooma loolu kon di balu ñëpp ak xulle di la remercier yow mi nekkoon si caméra bi di ñaanal ñëpp jàmm di wax gars yi ba suba ci beneen zidaa incha allahu rabbi attention Jackson daanu